jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp ci seen internet bi di 24 actu ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen jaajëfal leen waaye itam di jiital suñu nuyoo ak suñu siyaar euh, di ko ñaanal suñu borom yokk aw fanam te wéral ak cëram noonu lañ ko ñaanalee xalif général des Baye euh, euh, bi di Touba set setal bi nga koy amal at mu jot ginnaaw bi ñu wanee ginnaaw li nga xamante ni mooy màggal gi di màggalu Touba waaye itam rawatina gàmb gàmm gi nga xamante ne ci lañ ko doon fàttaliku ah, jëmm ji sell ji di na Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ah, lépp rek jëm ci loolu tey nag ngeen gis suñu taxawaay lépp jëm ci mbale mi ñuy amal ci dëkk bu sell bi di Touba ah, tey mu yemook aljuma yemook juróom benn fan ci weeru novembre 2020 waaye tamit yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci kanam ñu laaj ci askan bi nga xamante ni ñi ngi ci liggéey bi gis ngeen Baye Fall bi nga xamante ni ànd nañ ko ak moom ñu laaj leen seen gis-gis ak taxawaay bi nga xamante ni amee nañ ko ci xam naa ci kanam tuddi ñu mën a wax ak bay Fall incha allah Mourou Diouf da ñu daal di topp ñu daal di dékk suñu micro ba xam ban taxawaay lañ ci amee rawatina liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy amal. waaw man Ibrahima Diouf laa tudd. waaw ñu mi bi sell de moom mooy ci ndigal li rek taalibe moom ndigal rek lay saxe moom li nga xamante ni daal moom moo ñu fi indi moom mooy ndigal li rek Mame Cheikh Ibra Fall moom moom la nekk woon seen Sëñ comme moom la nekk woon ak sëñ Tuubaa nag loolu moo waral fi ñu toll nii ñun tam lépp lu ñu dégg dégg ci loo xamante ne liggéeyam Cheikh Ibra Fall la bu jëm ci sëñ Tuubaa rek dañ ciy taxaw luñ ci mën dinañ ko ci def waaw. lan ngay soññ mbokki taalibe daal moo gën a góor góorlu rek daanaka set seetal moom kenn ku nekk rek mën nga ko fa nga dëkk waaye nag boo gisee ñu di ko defee nii ab soññ la waaw parce que koñ bu ci nekk rek daanaka boo ko seetee ña fa dëkk mën nañ koo defal seen bopp waaw kon nag nañ ci gën a góorgóorlu rek jàppalante yi ca xam ne lépp liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh Ibra la waaw Diop laa tudd sa sant sant Diop waaw xanaa liggéeyal sëñ Touba ak Cheikh Abdou Khadim Mbacke mi nu yaakaar mhm. parce que yéen a góorgóorlu ci liggéeyal sëñ Touba ndax dese woon lu la liggéeyal sëñ Touba mhm. lanu weesu woon la nuy ci waaye li nu tàmbalee jëm ci suñ kanam mhm. danoo fas yéene liggéeyal sëñ Touba ak waa këram ñu gis na yow mag nga ba pare nga nekk ci liggéey bi lan ngay soññ euh, mbokki euh, euh, xale yi nga xamante ni tey ji toll nañ ci liggéey bi xanaa ñu delloo góorgóorlu rek te yéene am jom te fas yéene liggéeyal ndax lañ ñu jiitoo woon mag ñu njëkk ñu nangul sëñ Touba lañ nu rawee kon nag nun ñi ci des danoo fa yéene ànd ak sëñ Touba ànd ak donga yi liggéey sëñ Touba noog sunu njaboot fasala Seer Diop Touba teen maam Seex ñu naan ko Touba ci kanam waaw waaw taxawaay ji bi mooy li maam Seex Faal waxan rek ne a ah, doom ba ëllëg ba ñuy fay wax rek di bàyyi jëf hmm. jëf rek am solo Touba nag boo dëkkee da ngay mel ni waa Touba fas yéene doon Touba rek ba faaw ndax dëkk boo xam wax naa ko léegi nii dëgg boo xam ne fi ne boobu yàqoo dootoo baax boobu de kenn waru faa jéem a kon ñun yàlla bokk ci baax te loo xam ne boo ko liggéey yaa kilifa yi diine kilifa yi aada yéen ñëppay ànd ak ñi nar a bëgg lu baax te kenn ku ne am ko soxla nag ku ne am yitte mais dañoo bàyyi suñu jox ko jox ko suñu tubaab rek tubaab kàll macha allah gars yi passé fi nañu donte ñëwuñu sax moom respecté programme bi bàyyi nañ ci xel ne nañ bàyyi nañu liggéey ndax niñu ñu def ñu def ko nii ah, ko xel maa ngi soñu ndaw ñi ci ñu liggéey jéem a gën a liggéey Sëriñ Tuubaa ndax liggéey Sëriñ Tuubaa liggéey sa bopp rek la loo xam ne doo ko ñàkk fi doo ko ñàkk fee nañ ci a baax a teen man Seex Tuubaa kanam jërëgéen jëf mu mel ni ñi nga xamante ni ñoom la ñu loolu di ñi nga xamante ni ñooy waa kër si euh, Cheikh Bassirou Fall alquran ñu gis taxawaay bi nga xam ne amee nañ ko ci mbale mi di taxawaay bu am solo macha allah euh, suñu yaay euh, ak sant bi ah Fama Diagne ñu gis na a ngi ci mbale xam ban taxawaay ngeen amee xanaa di liggéeyal maam seex rek mhm. démb daan demoon ca màggal ga sonn bay bëgg a dee noo ñëw ci mbale mi mhm. di rek mhm. ñaq jëriñu ñaq jëriñu ah waaw lan digal mbokk yi ndaw ñi nga xamante ni tey xanaa ñuy liggéey rek ndax maa ngi sax tooguñu waxuma la xale yi liggéeyal maam seex rek no laa ci gis. waaw maa ngi tudd Serigne Moustapha Ndiaye Baye Fall. Moustapha taxawaay bi de moom wax dëgg yàlla ku ne xam ne Baye Fall yi moom diggal rek lañuy déglu maanaam da ci am mbégte loolu wax dëgg yàlla saa suñu déggee ndigalu sëriñ bi daal maanaam dañuy am lu ñuy yëg loo xam ni moom xam naa ni moom du ñun Cheikh Ibra la rek la ñuy ñaan nag euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu Serigne Touba di sant muy sëriñ mun taxaa Mbacké yàlla nañu ko yàgg sant yàggu yàgg koo jëf te lépp rek tegu ci ak bi waaw suñu xel sedd na loolu wax dëgg yàlla ndax maanaam bu ñu sëriñ bi liggéeyloo dañuy am mbégte moo xam ni moom xam naa ne yàlla rek lañ koy seereel ak sëriñ bi. waaw ndaw yi. de li ma leen dénk mooy. Euh, ginnaaw ba ñu dee ay xale ñu xam ne sunu borom moom dara du jeex ci moom ñu nekk ci li ñu war rek euh, bàyyi li nga xam ni waruñu te bañ a yàkkamti ndax ku tedd ki kat neewoon na toq toq moo mën a yàgg waaye yu ren mënta yàgg te adduna moom loo ci def ndànk rek def ci la la war rek incha allahu rabbi sunu borom dana la jox la sàkku waaw